donc euh, honorable député Bakary jeeju ginnaaw bu ñu la nuyoo projet de loi bi ñu adopté ko yéen ngeen voté contre euh, yan kàddu nga ñu mën a dénk ci oui donc euh, projet de loi bi wax nga dëgg voté nañ ko mais euh, on s'attendait à ça parce que xam nga majorité bi ci benn la nekk et gis nañu lu bees mooy intercoalition entre Benno ak Wàllu ñun xamoon nañ ni kii ñoom dinañ def euh, dinañ jàllale seen loi mais ñun suñ position mooy wone suñu taxawaay bi nekkoon dëmb mooy suñu taxawaay tey parce que bu ñu demee tey ba toll fii nii ñu naan dañuy amnistier euh, ay crimes yu bëri depuis mars deux mille vingt et un jusqu'au vingt cinq février yaakaar na te boo xoolee mars euh, le premier février deux mille vingt et ça a coïncidé avec les, euh, les événements de la fameuse affaire de euh, be, Suite Beauté. Donc, on savait que le, euh, le PASTEF était carrément le parti qui était visé et qui était la principale victime de l'affaire. Ce sont, euh, excusez-moi, c'est en français, suñuy militants yi ñoom la ñu rey suñu militants yi ñoom la ñu emprisonné suñu militants yi ñoom la ñu torturé bu ñu ñëwee ba toll fii nii ñu ne dañuy voté loi d'amnistie ñun dafa am loo xamante ne loolu moo ñu utile mooy lan ñu xam exactement càmbar <coughs> projet de loi bi ñu xam lu ci nekk ñu mun a xam ban moo lan moo war a nekk suñu position. kon bu ñu gisee ni ki ñun suñu militants yi ñoom la ñu torturé ñoom ñoom la ñu rey ñoom la ñu tëj ci kaso yi ñun suñu war euh, suñu taxawaay mooy ñu xam exactement lan moo ci nekk bu ñu demee ba xam. ñun lu ñu gën a soxal mooy xam ndax les crimes de sang mooy li nga xamante ne ñu ñu rey ñu ñu torturer ndax loi bi day protéger euh, ñu def ñaawteef yooyu walla lan n'est-ce bi ñu demee ba xam tey ni ki loi bi day protéger ñooñu ñu suñu taxawaay mooy di naan ñun on toujours di côté des populations sénégalaises on toujours ci côté euh, famille des victimes yi parce que suñu militants yi la ñu la ñu rey maintenant tey boo xoolee Euh, lu xew dëmb ak lu xew tey dafa xaw a wute parce que démb ñun dañuy adopté une position de neutralité mooy maanaam dañuy ne ñun dañuy mandu d'abord ñu gën a xam lan moo nekk ci biir loi bi loolu moo waral suñu collègues yi nga xamante ne dañu bokk commission des lois yi n'est-ce pas ñu abstenir maintenant am na ñoo xamante ne ils sont de mauvaise foi dañoo génn ci réseau yi ci média yi di naan waa Pastef dañoo abstenir kii nii mu mel ni loolu euh, c'est la première fois mu am et pourtant dugulet ci commission yi kenn ku nekk doo nangoo wone yow sa stratégie lan la sa position finale bi lan la ba nga am lu la leer nga fësal ko n'est-ce pas au niveau des travaux de commission maintenant démb lan moo taxoon ñu génnee suñu vote boobu nest a pas ko ci biti maanaam dañoo bëgg a jaxase ak askan bi mais nu on est resté cohérent à notre démarche parce que tout le monde sait que on c'est pas la première fois ñu adopté démarche boobu maintenant <clears throat> boo xoolee tey am na ñoo xamante ne Euh, ñu lëkkaloo ak des organes de presse di jéem a def un lynchage médiatique de Pastef loolu ça ne passera pas nous on a déjà fait une année de législature dañoo jàng lu bëri ci commission yi ak ci plénière bi ñun kenn mënuñoo influencer kenn mënuñoo perturber ba ñu def loo xamante ne euh, dina waroo ak ñun suñu taxawaay dëmb moo tax euh, ñi nga xamante ne mosuñoo soucier wu ci affaire euh, détenu yi mosuñoo wax ci affaire euh, ñu ñu rey tey ñoom ñoo ñëw ñu nekk des avocats de circonstance mais ñun xam nañu ñoom li ñu bëgg moo tax au moment du vote ils ont vu que ce qu'ils avaient pensé c'est pas du tout ça nous on a toujours dit si vraiment ñii dañuy dem vers amnistier les faits de notamment les crimes de sang tout ça ñun dinañu voter contre mais maintenant par contre su dee dañoo ñëw ñi naan ñi nga xamante ne ñoo def ñaawteef yooyu il faut que mu leer d'abord n'est-ce il faut que yoon def liggéeyam ñun man nañ ci ànd parce que pardon ñun ñëpp ko bëgg mais il faut nga xam d'abord euh, lan moo xew ñan ñoo def ñaawteef yooyu parce que ñoom taxaw nañ naan ñeneen yi ci ñun waa Pastef ñun ñoo rey mais au moins bu ñu ñëwee ba fii ñu naan dañuy def am amnistie ñun dañuy naan déet ñun ñu rey même bu ñu nekkee suñu boor nañ leen àttee n'est-ce pas juger euh, teg leen ay daan. su dee ci beneen boor bi lañ dëkk ci côté gouvernement bi wala FDS loolu aussi na yoon def liggéeyom moo tax ñun ñu adopté euh, position boobu boo fii nii boo vote de loi bi ñu joxe suñu véritable euh, xar kanam. am ay événement événement yu leen dab en séance euh, dissolution du gouvernement nomination d'un nouveau premier ministre mais aussi benn date pour l'élection présidentielle le 24 février le 24 mars prochain noo ko jàngatee. oui mais loolu ñoom la ñoom ñoo xam exactement. ñoom seen stratégie lan la lan moo tax ñu tas euh, gouvernement bi ñoom ñoo xam mais <coughs> euh, de toute façon nommé nañu un premier ministre kooku dafa war a gaaw former euh, son gouvernement son gouvernement pour ñu am ne serait-ce qu'un ministre de l'intérieur avec l'ossature là parce que ministre de l'intérieur seulement moom mun a organiser élection jàpp nañ date mais on attend que ñu former gouvernement nu mu gën a gaaw pour ñu am un ministre de l' intérieur boo xamante ne dina organiser élection bi ci nu mu gën a gaaw comme nu ñu ko bëggee le 24 bugguñu leneen xew ñu naan compte tenu de on va encore non élection bi dañ ko def le 24 bi ñu jàpp noonu et incha allahu rabi le président ba Bassirou Diomaye Faye va remporter les élections et nous aurons. Euh non président Ousmane Sonko. pas voter cette loi. Cependant, il y a beaucoup qui étaient venus aujourd'hui pour constater effectivement que Pastef était très pressé de faire sortir son candidat. Pastef était très pressé de faire sortir ses prisonniers politiques. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pastef a toujours été dans l'endurance et qu'à chaque fois que nous sommes en face de certaines difficultés, Dieu fait que nous nous en sortons la tête haute. Et aujourd'hui, nous nous en sommes sortis la tête haute. C'est un peu l'économie, vraiment, de ce que je peux faire de cette année. mars, par le gouvernement, en tout cas, réaction Réaction, c'est nous qui avions demandé à ce que le président Macky Sall fixe une date. Il a fixé une date. Je ne peux pas vous dire exactement la position de la coalition Diomaye Président. Certainement, aujourd'hui ou demain, on va appeler à un point de presse pour parler aux Sénégalais et dire la position que nous avons par rapport au choix de cette date qui a été fixée par le président Macky Sall. Le conseil qui désavoue encore une fois le président Macky Sall et le dialogue justement qui avait choisi la date du 2 juin. Là aussi, le conseil a aussi pris ses responsabilités malgré beaucoup de critiques qu'il a faites contre. Oui, le conseil a fait ce qu'il devait faire. Le président Macky Sall a fait ce qu'il devait faire. Je pense que normalement, s'il n'y a pas une autre crise qui freine le processus qui va démarrer, je crois que euh, tout est bien qui finit bien. Ça, c'est mon appréciation. Peut-être, je ne sais pas maintenant ce que les autres vont, vont décider. Nous avons une date. Le Conseil constitutionnel a tranché. Je pense normalement qu'on va aller aux élections. Merci. Oui. Je crois, je crois normalement Euh, qui sortira. Euh, il y a une loi d'amnistie qui a été votée tout à l'heure et qui le concerne. Normalement, il devra sortir pour battre campagne en même temps que le président Ousmane Sonko, son mentor, qui va l'accompagner, qui va battre campagne avec lui normalement. Quoi Non, l'amnistie, une fois qu'elle est votée, ça efface les faits. <laughs>